bisimilah barki borom Tuubaa mbokki jullit di mbokki taalibe asalaamaaleykum wa ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di baalu ñëpp aax ci leen baalaax di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ko ñaanal sëñ Amdi Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall jotaay bi nag bu ngeen ko gisee mooy mbokki taalibe yi nga xamante ni ñoom la waa Argentine yabaloon ñu ànd ak sëñ daam Cissé ak sëñ Abdoulahad Diop ak sëñ Cheikh Thiam ñu ñëw ci fekk fii waa daari daayira muxaddamatul xidma gi nga xam ni ñoom ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu liggéeyu jumaa ji nga xam ne ñoom la ko sëriñ bi teg seen loxo ñu do ñu ko téye ko di ko doxal doxinu mucc ayib doxinu wu rafet wu matale euh, ñu daan def nag chaque année liggéeyu liggéey yi nga xam ne ñoom ñoom la ñuy soññee ñu daan dajale suñu ñax di ko si dugal liggéey boobu lañ doon jébbale tey kon xam naa kàddu yi du gudd dañuy jox sëñ euh, sëñ daam rek bu ko defee mu soññ mbokk taalibe bi nga xam moom ñoom ñoo nekk ci Argentine ngir saa bu mu xadamatul xidma wooteetee rek kenn ku nekk ci ñun rek góor góorgóorlu bu baax ci li nga xamante ni moom lañ lay laaj ndax euh, bu ñu la waxee li nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy fere ci jumaa ji par weer wala par jour loolu boo ko calculer budget bi day nekk ay million par année te loolu nag kon day mel ni mbokk taalibe bu ci nekk fu waaye mën ne ci kaw suuf da nga cee war a da nga cee war a jàpp def ci sa àddiya ndax liggéey la boo xamante ni Sëriñ Tuubaa koy defal te sëñ Tuubaa moo ñu boole moom ñun ñëpp te kon kenn ku nekk war ngaa fexe sa àddee di tàbbi ci seen liggéey boobu ndax sëñ Tuubaa lañ koy defal euh, mu waroon ñu ñun comme comme comme ni mu leen waree ñu fe ñu féete ñu fa kon ñu ngi soññ mbokki taalibe yi saa bu ñëwatee rek ñu jàppal leen ci xam naa dañuy wàcce foofu kàddu yi jox sëñ daam bu ko defee mu mu mottali li ci des incha allah aousu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina a mustaqima siraatal lazina an'amta alayhim xayril maxduubi alayhim wala daalina rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu xaw mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare fii ci barab bu tedd bu màgg ci jumaay cheikhul xadim ji néew beeg bi ñu ciy jiital saaxibul fadila sëriñ tubaa sëriñ Muntaxa Bachiru mu yàgg fi loolu te wér ak njabootu Cheikhul Khadim gépp noonu lañ koy ñaani sëriñ Amdi mu sëriñ Modou Mbenda xalifa maam Cheikh Rahma mu yàgg fi loolu te wér ak njabootu maam Cheikh Rahma gépp ñoo ngi nuyu waa daayira Muxaddamatul Xidma ci njiitul sëriñ Afiya Busa imaamu salawatul xams ak sëriñ Abdoulaat Maam Asta ak sëriñ Abdoulaat Thierno di leen siyaare bu baax waaye di leen nuyu ci kàddu sëñ Mortala Sall jëwrin mi nga xam ne moo jiite fédération Touba Argentine ak sëriñ Bamba Ñang mi toftal ci moom ak mboolem dawaayir yi nekk biir Argentine gépp ñoo ngi leen di nuyu ci turu sëñ ci turu fédération boobu ñu ànd koog Baye Cheikh Dieng ak sëñ Abdoulahat Diop ak sëriñ Cheikh Thiam ñëwoon tey jii nag eh, doon eh, andi seen barkeelu ci daayire bu màgg bu tedd bi nga xam ne jotoon na ndigal ci Cheikh ak Cheikh Saalihu Mbakke radiyallahu anhu yal na yàlla yokk ay leeram te taaf na ci barkeem ci barkeem Cheikhul Khadim kon mu mel ne eh, alors rek ab soññe lay doon boo xam ne ñun ñëpp war naan koo bàyyi xel ak fu mën di nekk mboolem fu jullit nekk rek ci àdduna bi rawatina Latin Amérique diggante Argentine ak Brésil ak fu mën di noonu rek ci Latin bi ñu bàyyi xel bu baax daayira bi nga xam ne dara ëpp ko solo ci daayira yi nekk biir Touba ndax li ëpp wala li ëpp li gën a am njariñ ñoo ko féetewoo fii ci Touba ndax xam ngeen ne joxe aw ñam dafa nekk dafa bokk ci li nga xam ne dafa nekk lu ah, jaamu yàlla gu màgg gu am solo ñoom ñu koy taxawee nag ci weeru koor wépp nag diiru weeru koor sa Ramadan al Mubarak muy fanweeri fan yëpp daanaka ay junni junni bi ñooy ñëw ci jumaa ji di fi doge ginnaaw weeru koor màggalu Touba muy entretien bi jëm ci Touba ak li ko wër ci biir jumaa ji ak li ko wër moo xam lu mu mën di doon ak leneen lu am solo muy Baqiya gi nga xam ne moo nekk Touba te duppe ko turandoom ba ca ma Madinatul Munawara muy Baqiya di armée li Seexul Xadim yi nga xam ne ñoom ñoo yor lépp ak mboolem lu ci aju rek ci biir ak mboolem lu aju ci biir jumaa ji ak sàppe yeeg mbooloo mi mu xadamaatul xidma ñoo yor liggéey boobu kon daayira bu am solo la kon ñu gën koo bàyyi xel fu waay nekk rek di dégg sunu kàddu dina gis ñu bàyyi xel liggéey boobu nga xam ne leen rek moo nu ci war mooy lépp loo xam ne yëkkati nañ ko mu tàbbi ci jëwrin moo war a wàcc ci mboolem dawaayir yu nekk Argentine ñu gën koo bàyyi xel ndax daanaka ñoom seeni ndaje wala li nga xam ne moo ci aju mooy weeru koor wi ak màggal gi kon loolu moom ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax ndax liggéey bu tedd la te lu ci waay def it Cheikhul Khadim nga ko def nga ko defal ndax jumaa ji mooy jumaa ji nga xam ne Cheikhul Khadim joxe woon na ci ndigal ta mboolem ñi nga xam ne Cheikhul Cheikhul Khadim bàyyi woon na leen ñu wuutu ko ca Cheikh Moustapha al ak ba ba ba ba ci sëtam yi kenn ku ci nekk rek boo ñëwee li ngay jëkk a def mooy fexe yeesal wala sab liggéey li ci ëpp jëm ci jumaay Seexul Xadim bi ngir lu ko taaral lu ko yokk lu ko lu ko lu ko màggal kon loolu képp ku ci def sab dërëm doo nëbbu waaye ku ci nëbbu dootoo feeñ kon daal ñu gën koo bàyyi xel bu baax a baax di ci gën a góorgóor lu baax nag di ñaan yàlla suñu borom rek mu yombalal nu addee ji ak euh, ban nga xam ne dana mën a gën a jëf bu baax a baax a baax ci daayira bi nga xam ne mooy muxaddamatul xidma muxaddamatul xidma te nekk fii ci jumaay cheikhul xadim ji ñoo ngi wàccee foofu kàddu gi eh, di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp tey ñaan yàlla suñu borom nag ñu daje ci waq di xawaa ijal la siina daamu fii xidmati wahab lahum maaraamu barkeb cheikhul xadim asalaamaaleykum aousu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen nuyu ci turu cheikh mahamadul muntaxa mi tëgg jotaay cheikhul xadim ak ci turu sëriñ afiya bu sa mi nga xam ne moo jiital daayira Moukhaddamatoul Khidma di leen nuyu ci turu commission sociale relation extérieure waaye di leen nuyu ci turu kilifa yi nekk ci jotaay bi nii ndax ñu ngi ci yegg sëriñ Abdou Khadir Bousso mi nga xam ne wàllu sit bi ak communication bi ñoo ko yore ñu ngi fekk suñu Ousmane Faye tamit mi nga xam ne lépp lu ñuy denc ci xaalis wala dara. di trésorier bi moom moo ko yore ak Serigne Mourtala Mbacke ñu nuyu leen ci turu membre du bureau bi yëpp secrétaire général yeeg ñëpp ñu nuyu seen tur bu ñu tuddee seen Abdoulaye bi sama talib dana yóbbaale ñëpp ñu ngi leen di nuyu baax nag di leen sant di leen gërëm yéen waa Touba Argentine ku na xam na ne Argentine fa mu nekk ak fii sore nañ. kon képp ko yàlla dogal nga nekk foofa yàlla dogal nga bàyyi xel liggéey sëriñ Tuubaa yi di jumaa ji tax waxtu nekk ngay dox ay jéego yu ko jëmale kanam loolu sant war na ca waaye nag taw tawfeex la ci yéen ndax liggéey bi du liggéey bi kenn liggéey bi sëriñ Tuubaa la ñun seere rek lañ ci ndax sëriñ Saalif ba mu ñu koy wax 1994 daayira bi boobu waxoon nañu ne dana egg da fu ngeen ko foogawut waxoon nañ lu mënta ñàkk la tax xanaa Sëriñ Tuubaa moo leen ko dencaloon kon nag loola bu amee ngeen di dox ba yegg si foofu la ngeen di sori sori ngeen gëm ne sori gi jege am na waaye jege gi sori tamit am na ndax mbir lu la jege jege te doonoo ca dara doo ca dara mbir lu mu la sori dara sori sori te nga am pas-pas ba doon ca dara doon ca dara kon nag ñu ngi leen di sant ci daayira bi di leen gërëm bu baax. di teg loxo nuyoo boobu ak jëwriñ ya ci turu ñi fi ñëw tey jii teewal fi waa day fédération Miftahou Nasri bu Touba Argentine ci njiite sëriñ Mortala Sall jawrin ci ñu fi teew sëriñ Dame Cissé mi nga xam ne yàgg nañoo yàgg na fee ñëw yàgg naa dox ay jéeg yu dox suñu digganteeg yéen ñëw na fi nii ànd ak sëriñ Cheikh Diagne ak sëriñ Abdoul Ahad Diop ak sëriñ Cheikh Thiam ñu ñëw fi teewal fi ñee ca des ñëpp bu ñu fi teewee ñii mën nañoo wuutu ña fa des ñëpp. kon nag ñu ngi leen di teg boobu ak cant yi ak ngërëm yi ci seen loxo te nga xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma moom day daayira boo xam ne kërib taalibe yaa war a am sa gëm-gëm sa pas-pas si yëg-yëg ne waruma caa toog seetaan ca ndax daayira bi li mu yore kenn koo ci wax ne bàyyee ma ci sa wàll du nangu kenn koo ne bàyyee ma ci sa wàll jumaa ji du ko nangu ak lu mu la mën a jox ci xaalis doo nangu mu bàyyee la lee ci wàllam ndax ki fi tëdd la di suñu yaakaar tey ëllëg lee di muy bi ba ca bàqixa moom it kenn ku ci nekk boo ko waxoon ne ko bàyyi ma la nga ci yor du ko nangu ndax taali bi yàlla na yéex waaye bi fu wàcc bi liggéey ba suñu ñeen di ko tubaa te loolee nag kon daayira bi koy bi koy saytu kenn ku ci yaa war am yëg yëg yëg yëg sa bopp ci ne lii war naa caa bokk war naa caa taxaw noonu ma ko waxee woon rek ba ma ñëwee Argentine eh, loolu mooy liggéey bi mooy foo man di nekk rek nga gëm ne sa sa place nga fi boo ko jël si ñu jox la ko waaye boo ñëw ñu téye ko rek ba keroog ngay ñëw fii moom ku ñëw gëm nañ ni murid yëpp ak taalib yi am nañ seen wàll dañ ci ñoom nag ku ñu fekk jël sa wàll rek ñu jox la waaye doo du liggéey bu xat liggéey bu la boo xam ne ñëpp lay tàll loxo bañ ne ko ba xeeti yu bokkut yëpp kenn ku ci nekk la nga ci yor di ci yënguti du bañ du bañ soxla ko ñoom ñëpp dañ leen di soxla ngir njariñ li fi nekk bëgg ñu jariñoo ko kon na bu ngeen nekkee foofu yàlla dogal na njëkk njëkk woon nga ci koor gi dajale woon ngeen seen addiya andi barkeeloo ko ci ndogu yi kon xam daayira Moukhaddamatoul Khidma day dafi ndogu ci koor gi diiru weer lu mu néew néew bis bi set ñetti junni nit jëm kaw danañ danañ danañ fi doge kon loolu ku ku sori ba nag fexe ba soo ñàkk du jur gu sant yàlla war na ci baneen bi ci dolli ko waat mooy lu mel ne màggal Tuubaa gi nga xam ne fi ñi waa day wax dama ne gaa ñi tàmbali ñi yor liggéey tàmbali ñu ñëw dem te danañ fi am lu mu néew néew ay bis jëm fukki fan ci loolu ñun lay lay seen wareef lépp ñun ñoo ko waral ci tàmbali woon nañ la lu lakk ci jumaa ji lu ñu war a defaraat ci jumaa ji ak lu ñu war a joyante lu man di doon loola loola joyanti woon nañ ca tàmbali woon nañ ko di ca liggéey ci loolu kon nag képp ku jur ga saw ñaq rek xamal loolu lépp yaa ngi luy xet gu neex luy setal luy rafetal lépp wareefu daayira bi la ba fii may wax yow nii lu mu néew néew junni nit danañ fi nekk diiru ay bis te loolu képp ku ci joxe dara na la leer na gan gan gan Sëriñ Tuubaa yi nekk ci ñi Sëriñ Tuubaa yu ci na la leer na joxel nga leen ñoom joxel nga leen luñ sensé pile taxawu nga leen ci fajukaay ndax am na fajukaay bu nekk fii boo xam ne mm, infirmière boo xam ne képp ku fi dal dara dara irsan boo fa demee dañ la faj ti lu fi waay def rek loolu lépp sa tuyaabaa ngi ci biir kon nag liggéey boo xam ne Cheikh Mamadou Mountakha ma ko ji mi nekk ci bopp bi moo ci ñi ko soññ yow soññ mbokki taalibe yi ñu jàpp ci kon nag yéen bu ngeen déggee woote boobee sant yàlla war na ngeen góorgóorluwaat nag ndax lu yombut ku ko yor ba mu dox ba ak say loxo da ko war te téye bu baax a baax ñu ngi leen di sant ci daayira bi di leen gërëm di leen ñaanal yàlla sunu borom tawféexal leen may leen xéwal yu baree bari yoo xamante da ngeen li ngeen yéenee liggéeyal Serigne Touba da ngeen ko am sàmm leen nag sàmm njaboot gi jafe-jafe yu ngeen fa am te yàlla ko yàlla safara yàlla na yàlla yombal yëpp ba ngeen mën am liggéey Serigne Touba ni ngeen ko bëggee ci bàkki Sal Xadim sant nañu leen gërëm nañu leen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu